internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa ay xibaar ci réew mi ak ci youtube Seneinfo international ak suñu teewlu di leen dalalaat seen émission sociétale penc mi te ñu am comme gan Mouhamed Diop Carter moom docteur la en informatique nekk président bu parti doxal Sénégal nekk it euh, candidat à la candidature présidentielle 2024 donc boo xam ne la ko bëgg a jiite réew Sénégal la naa dinañ wax nag lan moo tax mu bëgg a jiite kon suñu réew mii di Sénégal balaa ñu sori rek dama koy bàyyi nuyoonteeg ñi nga xam ne ñooy mbokk jërëjëf sëñ Boussi salaamaaleykum wa rahmatullah nuyu naa internaute ak spectateur bu Sénéinfo bu Sénégal nuyu yi gën a tedd yi gën a màgg tàmbale nuyoo bi ci samay militant parti doxal Sénégal di ñaan suñu borom bi dara taw émission bi bokk ci émission yi gën a neex ci Sénéinfo tàmbale ko ci bismillah rahmaan rahim ak lépp ci alhamdulilah am na solo balaa ñu sori rek dama lay laaj Mouhamed ñoom Sénégal yoo xam ne dafa def tey lay gis boo ñu doon wax ana kan mooy Mouhamed eh, Diop Carter surtout dëkk yi ñu naan ñu wax. jërëjëf sëñ sama parcours eh, xam naa pour ñu jógee fi dana jafe nekkul parcours boo xamante ni bu éloigé éloigé la parcours la comme parcours sénégalais yi yëpp yu ci ëpp eh, sama jaar bu jaar fii ci Sénégal ma defee fii Daara d'abord.

ñu am ay ndaw yoo xamante ne dañuy taxaw ngir mën ko yeesal yeesal ko nag ak xarala yu bees ba looloo ma daal gën a jàngiwaat hmm. bi ma demee jàngi informatique suñu bopp dafa ma am sama master doon ak ingénieur mu ñëw Sénégal taxawal sama benn application bu gérer école bu tudd Nicole ci application boobu nag ci laa duggee biir ministère de l'éducation encore mais boobaa cette fois-ci compétent en conseil technique hmm. jaar naa fa liggéey naa fa laata boobu jotoon naa collaborer ak Microsoft liggéey ak ñoom yàgg yàgg seen programme de l' office 365 dama bokk ci Sénégal yi nga xamante ne ñoom dañu njëkk certifié ak programme boobu. ginnaaw loolu ma daal di foofu di ministère de la formation professionnelle ci bancaire bi tudd APDA daal di fay nekk responsable système d' informatique bi du lool am ay euh, changement yu majeur ci naka la ñu mën a defee ba artisanat Sénégal dana mën Euh, ñu jóge ci loolu bon comme tu sais ensuite ma daal di mettre en place une structure boobu. ok soft. suñu soft comme ni ko déggee suñu xamante ne day euh, day yëngatu ci wàllu xarala yu bees yi. rawatina jumtukaay yi ñuy utiliser ngir gën a mën a yaxanal suñu liggéey ci entreprise ci koom-koom ak ci yoon. am na solo euh, jaar-jaar boobu dégg naa ko léegi ci sama biir euh, wax euh, njiital ab parti nga ñu bokkal Sénégal parce que it euh, bokk élection présidentielle bi kat man balaa ñu si ñëw rek da ngay yëngatu ci mbirum informatique muy lu am solo tey bu la laaj tolluwaay informatique technologie bi en général fii waaw su ma ko doon évaluer wala moo ko dafay wax ne peut être cinq sur dix cinq sur dix ndaxte xam nga Sénégal nekk dëkk boo xamante ne. xarale bi xarale xarale yu bees yi am na noonu yenn yenn dayoo yi boo xoolee ñun suñu jafe-jafe bi gën gën a fës mooy jumtuwaay ndax tey boo xoolee technologie ni mu doxee bitim réew ak Sénégal wute na lool mm. donte nag yu ëpp ci Afrique yi gën a xarañ ci mbirum technologie Sénégal la bokk. Ah. mais malheureusement amuñu yi tax ñu moo mën a exercer seen profession comme ni mu waree bu ma doon évaluer mbirum. informatique Sénégal dama koy def ci ñetti bi ci njëkk mooy li ñuy woowee informatique classique maanaam lu jëm ci euh, système bureautique traitement de texte ak yooyu daanaka boo xoolee ci formation yi def ci école yëpp lu ci ëpp loolu formation donc lu ci ëpp daanaka étudiant yu bëri sax boo xoolee seen naan maîtrise woo texte effectivement maîtriser wu ndaxte bureautique professionnel bokk na ci daanaka euh, ndorteelu euh, informatique ndaxte booy ubbi booy booy dugg ci bunt bi daanaka juróomi professionnel lay doon parce que maanaam nag nga mën a prévenir sa texte sa texte nag nga ko mën a agence yi ba ci yéen ñi nga xamante ne yéen ay taskatu xibaar yi naka ngeen di traité seen i information ak outil informatique mm-hmm. lépp loo bëgg def ci àdduna ba mu des sàkk doomu aadama mën nga ko def ko ordinateur mm-hmm. lépp loo bëgg liggéey man tey damay faral di wax naan suñu borom moo ko doon jox benn métier profession dama naan informaticien ndaxte informatique boo xoolee li muy firi mooy maanaam lépp lu jëm ci ngir ñu mën ay information te boo xoolee am na fan boo xamante ne boo gisee nit ñi ni ñuy juddoo ak ni ñuy génnee mu informatiser wu ñu mu automatiser wu ci lii donc xanaa informaticien moom kontaan nit ñi ba nga xamante ne buñ eggee ci fànn bi kat topp nit ki day gën a àdduna buñ eggee ci fànn bi kat topp sa wërsëg bi nga war a def da nga a def donc loolu mooy pàcc bu njëkk bi maanaam bureautique informatique Mm-hmm. beneen sens bi mooy lépp lu jëm ci wàllu conception maanaam defar conception moo xam dafa site internet moo xam dafa logiciel moo xam dafa réseau informatique ñoo câble seen entreprise wala seen structure ak yooyu mm-hmm. loolu tamit euh, am nañ ci ay avancées majeures donte nag euh, défi problème bi nga xamante ne jafe-jafe yi ñu gën a jàmbanteel doon aussi maîtrise ak compétence parce que dëgg la bëri na ay ci loolu waaye seen jafe a am mooy la mise en pratique ndaxte école bi ci ëpp formation théorie kese la ñuy def waaw jafe-jafe mooy pratique bi moo tax am na ay étudiants en master ay étudiants docteur ay étudiants ingénieurs am nañ seen liggéey mais tey jii bu ñëwee sa entreprise de stage wala nga yóbbu leen ci yenn entreprise wala nga confier leen yenn marché mais carrément dañu gis seen i lakk yu seen i jafe-jafe yi ñu ko mën a def donc boobu mooy deuxième partie bi ci njëkk. c'était la phase tableautique. Mm-hmm. beneen bi mooy la conception. troisièmement mooy déploiement maanaam lan la ñu mën a def ba ñu a généraliser informatique bi fépp. tey da ngay gis ñu ko xamante ne jàngaw sa loolu euh, waaye comme que dañ toll ci njublu wala mu créé benn chaîne YouTube ñëw daal di créé chaîne am information boo dugal daal ci dagg li ko amal solo dugal mois trois mois après mu am ay millions de vues. donc euh, sénégalais yi ci ëpp ci dëgg seen jàng yi amul fi mu mais information bu dugg rek ni ñu ko jotee man noonu la koy wasaare nañ vérifier dëgg la wala du dëgg donc ci phase déploiement boobu na fan la war a sax xam naa ne du ñàkk xëy na ci suñu waxtaan dañuy dugg ci naka la ñu xoolee mun a régulariser les réseaux sociaux yi parce que dans ce domaine c' est un domaine extrêmement sensible ndaxte boo xoolee yéen ñii di effectivement mooy ñoo xamante ni bokkuñu ci. sax bëri na ñoo xamante ne dañuy wugo journaliste te duñu ay journaliste. bëri na ñoo xamante ne dañuy ay reporter te duñu ay reporter. te tey li avancé technologique doxee am na day dox boo xoolee téléphone portable mu fi commencé dugg ay am ay jamono quatre vingt dix neuf quatre vingt dix huit quatre vingt dix neuf deux léegi xoolal ñu dem ba trois deux mille quatre ñu commencé ay téléphone à afficheur numérique ñu commencé ko jamono yi ñoom vers 70 ñu mën di identifier kan moo ñu woo kan moo ñu woo ñu dem jamono jamono jamono dem ba léegi ñu commencé am ay smartphone mini catégorie maanaam ay téléphone claque ak jamono yi Motorola ak yooyu. boobaa di nga mën a jokkoo mais daawul am interface bi nga xamante ne hors machine la mooy buy def yow nga mën di taper wala nga mën di saisir pour mën a am information yoo soxla jamono yi dem nag ba léegi smartphone léegi nag est-ce que sénégalais yi. ils ont été préparés à l'avènement numérique. Est-ce que ils ont été préparés à cette transition de la technologie foofu nag xam naa certainement dinañ ci dugg ci kanam incha allah. effectivement point bu am solo. xam naa sax foofu la ñuy ñëw rek euh, ndax Sénégal yi préparé nañ ci li nga wax noonu ndax euh, lu bëri dañuy gis ñu jàmbat euh, ci réseaux sociaux yi ay dérives mooy soo dérive dama ñoo xam ne dañuy utiliser idée outil tomate boobu pour arnaquer ay nit. Euh, ak euh, ak yi ni mel. ndax tey mën na ne ñu réguler li nga xam ne moom mooy secteur boobu mais waaw naka la ñuy def. effectivement gis nga tey euh, <clears throat> secteur multimédia la wax multimédia daanaka internet ci la bokk. son ci la bokk données ci la bokk image ci la bokk donc loolu yëpp pour que globaliser moom moo ci multimédia. multimédia tey dafa am beneen facette mu am beneen facette mu am ci ñaari faat kenn ku nekk daf ciy jéem a tirer sa profit dafa am ñu mooy les géants informatiques maanaam Google Amazon Facebook ak Microsoft ñoom ñeent ñëpp seen euh, seen bëgg-bëgg du lekk du dul kenn nekk ëppale sa morom ak utilisateur boo xoolee daanaka appareil bi ngay utiliser. di ko defar marque HP la. Mm-hmm. HP moom moo inventé système bi jël industrialisation bi yóbbu ko wala Taïwan wala Corée ñu daal di koy defar mu daal di ñëwaat en France ñu daal di tey système d' exploitation système d' exploitation bi mooy jumtuwaay bi mu la dox. jumtuwaay boobu ki ko defar Microsoft la parce que interface Windows ngay utiliser. Mm-hmm. am na aussi interface Apple maanaam iOS maanaam képp ku yor ay iPhone yooyu. yeneen interface téléphone yi toujours ci interface Android Android Google maanaam ñoom tey jii li ñu soxla moo raw trésor li ñu mooy ñun suñu information yi ñu yor ñoom ci li ñuy liggéey ci nag tey jii yow boo duggee ci benn site internet di recherche information ñu chronomètre heure bu ñu ak heure bu ñu fa génn ñu bi mu dugg yan information bu ñu ak information yi a am lan nga ci def nga ko partagé wala nga ko transfert par mail wala nga ko copier collé ko sa document Word et cetera loolu yëpp da ngay xam loolu yëpp da nga xam loolu yëpp da nga xam gis nga informatique lépp lu ci bëgg xam mën nañ ko xam waaw yaa ngi doon wax léegi état ndax mën na ñu naan effectivement état lu mu bëgg def da koy def état lu mu bëgg def da koy def parce que dans le principe de dafa tënku ci constitution bi nga xamante ne mooy charte réew bi mooy définir ni réew bi wax te ci constitution boobu dafa ni réew bu nekk da nga am sa indépendance boobu maanaam lu neexul nit ñi koy jiitu waaw tey jii état bu ko neexul léegi léegi léegi Facebook dootul doxal ci Sénégal luñ ci mën daal même utilisateur état bu ko neexul léegi léegi léegi YouTube dañ koy tëj état bu ko neexul léegi léegi Instagram wala yeneen réseaux sociaux yi dañ koy tëj léegi nag pour tëj ko nag naka lañ mën a def dëgg di exposé secret xëy na waa Ngom bi di ko copier bu xam mais ñàkkul incha allah buñ ci dinañ ci jox ko. mais nag dégg rek lañ mën a dégg rek lañ mën a def. régulariser du tëj régulariser du tëj régulariser mooy naka lañ ko mën a euh, toppee ci yoon ba nga xamante kenn dootul def lu bon xam nga fi mu ne nii dem na ci nekk aussi euh, numérique enjeu bi mu am dafa ëpp dayoo ñoom ñi ko créé sax daf leen loxo parce que numérique dafa indi léegi beneen forme de menace bu amul woon mooy li ñu woowee cybercriminalité te cybercriminalité du lenn lu dul maanaam def ay ay ay toj jaarale ko ci xarala yu bees moo xam internet moo xam sa téléphone portable moo xam réseau télécom yi léegi nag ñun ñëpp mën a régulariser loolu mën na sukkandiku ci ñaari fànn bi ci njëkk damay joxe juste exemple bi gën a lu lépp laay joxe ñun ñëpp kenn ku nekk si ñun ngir mu mën a utiliser téléphone portable day am puce sa puce boobu dañ koy identifier ci ki nga xamante ne mooy opérateur téléphone bi bu ñu koy identifier sa carte d'identité la ñuy yóbbu sa tur sa sant ci nga dëkk. sa sa sa sa wóytu etc. bu dugalee yenn information yi effectivement am nañ déjà ces données donc ça veut dire que état déjà am na ces données personnelles. ñaareel bi nga créé compte Google pour nga mën a utiliser sa interface Android booy créé sa compte Google say données personnelles nga ci def sa tur sa sant sa adresse ak sa tur identifiant bi instant bi nga xam ne ci ngay créé sa compte Google Google repéré na sa. sa sa position. environnement bi ñu ko créé fan ko créé ñaata waxtu ko créé. nga jógee fa sa téléphone portable dem Kër Masamba muy Thiès wala nga dem Fatick wala nga dem Josmor déplacé wu sa téléphone jot nga dugg ci connexion 3 wala nga activé sa 4G Google tracé na sa position loolu la ñu wooyee triangulation maanaam jot na xam déjà sa itinéraire xam déjà benn gi noonu ñaareel. nga dem nga créer sa compte YouTube parce que képp ku am compte Google automatiquement tu as droit aux nga créer sa compte YouTube sa compte YouTube boobu moo leen la permettre nga publier bu njëkk bi ñuy créer YouTube créé wu ñu ko woon pour nit ki dugal lu ko neex créer ngeen ñu mën see jàpp te boo xoolee euh, commencement wu YouTube c'était pour des ay documentaires. ay interfaces ludiques yoo xamante ne peut-être c'est pour déstresser mais aussi pour découvrir le monde tout ça dans un environnement éducatif mais léegi dañ koy détourné léegi nit ñi dañ koy utiliser comme arme pour di mën a defar donc yow mi nga xam ne am na sa compte YouTube déjà loo publié loo publié Google xam ne heure bi ñu ko publié ak heure bu ñu fa génn. xam nga aussi yow mi ko publié ban intention la ci am lu ko war a vidéo bi nga xamante ne da nga koy chargé dugal ko YouTube ne da koy chargé automatiquement pour mu génn déedéet YouTube dañoo am seen application algorithme benn programme informatique boo ne dañ koy taxaw. buy mu munti def ci ordinateur bi. ok vidéo bi nga dugal automatiquement algorithme bi daf koy identifier de A à Z analyser ko xool nag amul amul benn données yi mooy étape vérification bi nga mooy étape vérification bi ngay gis boo gisee muy yàgg yëpp Google téléchargé na si vidéo bu yàgg vérification bi nag moo des vérification bi nag ci ñaari fànn la bu ci njëkk authenticité produit bi nga dugal maanaam produit bi nga dugal ndax yow mi ko dugal yaa ko moom foofu waaw bu fekkente ne dugaloo ko automatiquement day analyse ci base de données bi ma xool nag amul keneen ku ko dugal wala seen am na keneen ku ko dugal mu ne la kat réclamation pour droit deuxième phase de vérification bi mooy contenu bi nga dugal ndax amul contenu euh, offensant maanaam euh, séquence pornographique wala séquence meurtrière wala foo xamante ne gis-gis bi daal neexul bu boobaa YouTube algorithme bi da koy signaler YouTube bi daal di entre phase euh, notification vérification boobu noonu notification état mën na intervenir tey jii ngir Google wala Facebook wala yeneen zone yu mën a euh, liggéey Sénégal wala ñu mën a exister Sénégal dafa mel comme licence télécom bu ñu amoon autorisation état a état lañ mën a toog ak ñoom toog ak non seulement internet parce que képp ku a wu orange mën a la mën na lu connecté wu yan données nga transféré yan données nga génn loolu yëpp ils le savent parce que l'état peut tout tracer mais aussi les partenaires numériques que ça soit gis naa ne kat sama population jeunesse bi moo ci ëpp te jeunesse bi population bi ni muy ëppee jéggiin dayo fii ay at yu néew daanaka ñuy doublé nag dafa dafa jot tey waajur bu nekk kilifa bu nekk mën a taxaw li ñu mooy éducation numérique ñu yaat suñuy doom mais ci xarala yu bees yi mais ngir nga mën a yàgg ci xarala yu bees yi foofu yow dafa bokk nekk ci xarala te tey malheureusement li ñuy jot a gis mooy ne état dafa fay foofu état ci boppam maîtrise wul xaalis yu bees yi donte am agence yu bëri yu mel ni ADIE moom tudd léegi Senu Sénégal numérique et loolu moo nekk euh, li ko gën a li ko gën a li ko gën a yitteel ñun ñoo mën a développé ñu naan Sénégal mais malheureusement foofu dañ ci laaj dañ ci laaj laaj bu méttee métti te ñoom ñoo mën a jege population sensibiliser leen xamal leen ne kat internet lu baax na waaye li muy yàq moo ëpp li muy defar. Euh, am na benn fànn boo xamante ne sax xëy na peut-être dina ci dugg noonu euh, mais dinaa ci jox tuuti information xam signal. di la di la jël te yoo xamante ne bien sûr. mun na la enregistré mun gis loolu ci xam dara loolu yëpp ci xarale yi mais tey jii supposons ordinateur bi nga jox ko sa doom yoo xamante ni fukki at ci àdduna mhm. sa doom bi nekk ci néegam am internet donte bloqué nga yenn information yi mais moom gis nañu li ko gën mooy ay fo bi mu duggee ci site jeu vidéo yi nga xam ne kat xale bi li muy dugg ci jeu vidéo yi dafa bëri kon nag site bi defar jeu vidéo bi war na mën a jàllale ay publicité yenn saa mais publicité yi muy jàllale est-ce que contrôlé na ban pyramide d'âge ñoo ko wax xool loolu day jàllale rek léegi ki nga xamante ne moom ak pirate informatique la euh, woy fi muy jël ci informatique moom def ko lu baax moom mun na ne kat ah chaîne YouTube bi bàyyi mu profité jàllale samay complicité te kenn du ko xam mais xale bi daf koy seetaan te doo ci man nag naka lay def boobu ñu utiliser mën na activer sa caméra bu xool yow lan la gën a mën a concentré wu wala vidéo bi nga indi ndax toog nga seetaan ko pendant deux minutes trois minutes bu fekkee c'est intéressant mu dem changer séquence indi beneen vidéo jaar na mën a seetaan ko. loolu bu dee da ngeen attendé si mais moo tax nag ma ne la léegi léegi euh, informatique li muy yàq moom li muy te xëy na nit ñi xamu ci mais ñun ñi nga xamante ne ay spécialiste lañ lañ ci euh, suñu borom daf ñu xam fan yi yem ak fan la ñuy yem lan a def lu baax lan lañ ci a pour que boo ëpp fuuf lu muy defar waaw c'est ce que j'ai une dit euh, l'informatique détruit beaucoup plus qu'il n'instruit waaw c'est vrai qu'on définit l'outil informatique comme étant l'appareil permettant de traiter automatiquement les informations. mais ordinateur informatique intelligent boobu information boo ko joxoon loolu boo la traité. léegi nag mu tax champ informatique yi dem ci loolu moom la ñu woowee les big data maanaam les master données maanaam information boo nga xamante ne moom la seen dossier wala ma Samba wala ma Demba soxla ñoom danañ ko mën a recueillir analyser ko. xool dossier bi ban heure lay ñëw ban heure la tàmbali connecté wala connexion bi am nan la ñuy xool yan site et cetera ñu analyser données yooyu yëpp profil profil numérique bu dossier moo tax nag euh, tey jii laaj na état dañ lay ñaan état ñaan suñu njiitu réew loolu président de la république donc gis naa ay mesures yu am yu ci def mu gën a dans le domaine de l' numérique. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place tout de suite des programmes d'enseignement numérique dans les écoles. C'est vrai, on tend vers ci gox goxaan ci kër yi ci école yi ci daara yi ci jumaa yi ci ci jumaa yi ndax tey même léegi gis nañ am na ay imam yu bëri seen xutba yi ngir ñu mën a tàmbali ci loolu nañ xamal ndongo yi la moo leen ci mën a fekk tey jii da ngay tiim tayul ku mel ni ki man damay dugg ci benn banque infiltrer seen système informatique def ci détournement ba koy bàyyi sa photo ak sa identité bu ñuy wax tax ñu ko yow dañuy wax donc loolu yëpp ay yàq-yàq moo tax ñu ci ëpp ci ñu di nga gis nekk déjà moom lay foon dafa naan leen euh, seen seen photo profil wala statut yi ngeen am ci Facebook wala ci euh, Instagram wala dans les réseaux sociaux et l'habitude de changer ça toutes les semaines D'accord En plus, actualisez votre mot de passe tous les deux mois. Tous les deux mois. Parce que Genghis am na algorithme yoo xamante ne day mémoriser mot de passe mais bu ñu attaqué algorithme de passe yooyu dañ koy am moom ngi dégg nit ñi naan la man kat alors que loolu c'est ce qu'on appelle une attaque en masse maanaam piratage boo xamante ne dafa jëloon

état na def ñu ko wax te mën nañ ko def te incha allah am naa yaakaar président dina a laaj rek balaa ñuy dem ci wàllum moom mooy ñu service état bi service administration yi dafa nekk loo xam ne nekk nii mën naa ne ne loolu mën na nekk tey nga xam moom mooy état bi administration yi bi nga xam ne population yi tey ñu ñu ay dina dina gaaw ndax toll nañ peut-être foo xam ne. tout à fait il faut que ñu gosi dinaa la xamal benn information bi nga état wax naa la ko léegi lu rek da koy def état lu mu rek dafa nekk priorité gis nga tey jii dama la jox benn information gis nga boo xoolee ci dans le domaine des finances tubaab bi dafa am benn projection bu mu am maanaam fii fukki at xaalis bii dootuñu ko utiliser on va utiliser ce qu'on appelle la crypto-monnaie ba loolu sax am na yenn spécialistes yoo xamante ne ñu ngi ciy ñaaw xel ñu Covid bi sax est que du loolu moo tax ngeen nit ñi bañ di nuyonte bañ di laalante am na ñu def parallèle boobu ñu ne sax est que Covid bi sax nekkul benn genre lay boo xamante ne ngir mën a. digitaliser lépp luy procédure dans le monde te boo xoolee en un laps de temps dëkk yu bëri am dans le domaine de la digitalisation y compris Sénégal ci temps Covid ci temps Covid boo jëlee dans le domaine ils ont mis en place la plateforme Sen Prof ngir xale yi en ligne ils ont mis en place aussi je pense la télééducation qui permet aussi enfants de pouvoir apprendre en ligne léegi nag dans le domaine des procédures c'est là où il y a une xam nga digitalisation dafa am lu laaj au préalable mm-hmm. bi ci njëkk mooy kaaraange information yi ak fan lañ koy denc xam état tamit mënuñ jël suñuy yu sensible yëpp naan dañ koy dénk benn serveur bu nekk France alors que fii Sénégal am nañ fi ay ndaw yoo xamante ne seen xam-xam ci loolu la màcc. dëgg sa doom jam ñaar yëpp est la am ak ay euh, effectivement data center bi pour que Euh, nguur xam na état xam na xëy na ñeneen xam na aussi xam na xam naa aussi les limites de data center li mu mën a def ak li mu a def mais mën na wàññi lu bëri si suñu coono data center boobu ndaxte même bu fekkente ne liñ doon séntu wala xaar mënu ko def na wàññi lu bëri si suñu coono ba na digitalisation procédure bi c'est très simple mais ce qu'il faut après là c'est la sécurité des données. garantir la sécurité des données ndaxte tey jii. am na am na am na yenn groupe de pirates informatiques yoo xamante ne ñoom heure boo yeewoo di xëy di wut information di liggéey ñoom ñu ngi xëy di xool information bi ñu koy contrôlé loolu seen liggéey <laughs> heure boo xëyee di dugal di collé di identifier wala di changer seen mot de passe données informatique ñoom ñu ngi xool naka la ñuy débloqué code boobu te tey nañ jël benn exemple. suñu données informatique bi administration bi yëpp ñu centraliser dans ce data center te amul ce qu'on un système relais maanaam un système auxiliaire buy tax bés bu attaque amoon ci data center bi a système buy récupérer information yi a perdre yëpp en un laps de temps mais aussi <clears throat> avec ce système de calculateur numérique mu mën a rapidement algorithme yi mën a tax mu réidentifier seen mot de passe ba pare notifier seen mais tey attaque informatique bi am dana fekk ngay xandoo yaa ngi nelaw nelaw yu gën a xóot ay trois heures du matin laata ngay yeewu ñëw fekk sa doon yëpp dem nañu donc état foog mu liggéey ci notamment les cryptologues ñu mettre en place benn euh, protocole informatique boo xam ce sera spécialement Sénégal bu ñëpp mën a assurer sécurité boobu loolu mooy benn bu ci njëkk sécurité ñaareel si l'éducation numérique éducation numérique ba nga xamante ne population bi nekk Saraya ki nekk euh, Raaw ki nekk Fissel Mbadane mu mën a xam ne kat léegi jaratul mooy woo di ko yónnee wari deux cent wala trois cent ñu déedéet sama téléphone portable laa yor xam naa fi may dugg xam naa fi ma dugg fii kat su si duggee kenn du ma woon naan ma jox ma sa code orange money ngir ànd ak mooy autorisation bi ñu liggéey effectivement donc sa téléphone portable lépp lu bëgg a am da nga koy ci sa si moom ay point de relais numérique par exemple koñ bu nekk ñu teg ko comme ni ma amee kiosque Orange Money moom kiosque boo xamante ni cent cinquante tiré les documents buñ ko tiré yow nga dem jëli sa pièce ci commissariat bi légalisé ko pour avoir la signature et authentifier ça mais jeex na daal lu mën a nekk la lu mën a nekk la la rek buñ amee volonté rek am na solo xam naa nag dañuy euh, nekk nii rek li nga xam ne moom mooy euh, wàllum euh, politique nga nekk njiital parti bu doxal Sénégal fas yéene nag comme yaakaar naa ni ko parti politique bu nekk bëggee jiite réew mi xalaat bu taxawal parti bi nan la waaw Buur Sine doxal Sénégal. lu yéeme la tur bi sax déjà dafa yéeme ndaxte boo déggee tur doxal Sénégal maanaam ngir Sénégal mu ngi jëm kanam te bu wax Sénégal jëm kanam génn ñu ci benn xeet na ñu ci benn waaso génn ñu ci benn diine ñëpp lañ boole ngir ñu bokk ci fekk nag ñu ngi dëppoo ak charte réew maanaam li ñu tere ñu li ñu santaane ñu koy parti bii di doxal Sénégal. kuréel gi ñu ko taxawal en deux mille dix huit le 17 avril deux mille dix huit le 21 avril ñu def suñu réunion assemblée générale taxawal Doxa Sénégal bi ñu koy taxawal nag ay jeunes yu ñoo ay kilifa ay mag gis-gis du lenn lu dul ngeen ñu mën a xamal sénégalais nee nañ bu weesu politique bu saaga politique bu defante politique wax-wax bu ñaaw politique bu jëf-jëf bu ñaaw war nañ mën a toog benn instant boo xamante ne dañuy fàtte politique. kenn ku nekk xool fi nga jóge xam ne kat man ak diw ñoo bokk dëkk man ak diw ay mbokk lañ man ñoo bokk sant man ak diw ñoo bokk kon bu koñ taawee ñu ñëppay sonn kon nag nañ teg politique bi à côté ànd boole suñu xam-xam suñu mën-mën ak suñu doole defar dëkk loolu mooy doxal Sénégal idée bi foofu la jógee doxal Sénégal nag ndaw ñi ñoo ko moom ndaxte boo xoolee li ëpp ci population Sénégal lañ représenté ba noppi jeunesse bi dañuy jàkkaarloo ak ñetti jafe-jafe bi ci njëkk dañ leen marginalisé ku ci nekk ndaw rek dañ jàpp ne kat da nga yàgg ko amuloo xam-xam amuloo yar amuloo tekki. te loolu bokk ci instance de décision bokk ci instance de décision yi. ñaareel bi mooy ne kenn waxatul toog di décider suñu place y compris l' état mi. même président bu définirez son projet euh, sa politique de la nation en termes de jeunesse d'emploi et cetera il faut qu'on associe la jeunesse parce que aussi comme ni ñu ko waxee ndaw mooy ëllëgu réew lu weesu loolu nag waxuñ ne kat ñun ñii ndaw Sénégal wala ñun ñii ndaw ñoo war a jiite lépp déedéet dama naan na ndaw jiitu mag ci wetam waxuma ci ginnaaw mais ci wetam ba nga xamante ne comme que ndaw li moo am kattan moo am sañ-sañ moo am mën dana mën a doxal mag ñi di ko tegti naan ko jaaral fii loolu mooy doxal Sénégal ñun nag conseil bi ñu am wote loolu di fi am ci opposition nekkuñ ci parti au pouvoir doxal Sénégal askan bi kese moo ko ñoom bu ñu gisee loo xamante ne président daf ko teg muy lu baax lu amul njëriñ askan bi danañ ko encouragé danañ ko félicité bu nekkee loo xamante ne amul benn njëriñ askan dana tokkat ne président li nga def nii du noonu nii nga ko a defee te nii lay gënee ci askan bi parce que aussi ñun on n'est là pour être une opposition qui est là à faire des manipulations wala di critiquer wala déedéet non opposition dëgg liy liggéey mooy faire ce qu'on des contre-propositions voilà le président li nga taxawal duñ ne baaxul kat mais nga defee ko lii moo ko gën mm-hmm. donc ñun xalaat boobu la ñuy demee te ubbi suñu bunt ñëpp y compris les gens du pouvoir que de l'opposition suñu intérêt <clears throat> suñu suñu bëgg-bëgg mooy li ñu wooyee unité nationale. unité nationale ngeen nit di waajal su nekk nii 2024 ngeen cee fas yéene donc euh, candidat ngeen jël réew mi ana tey lan ngeen yaakaar ne moom la tax tey lan ngeen wan Sénégal yi ana tey lu ngeen indi lu bees. am tey programme boo xam ne peut être tey Sénégal yi ngeen leen convaincre ba ñun ñëpp ñun ñëpp mooy suñu programme boo ko déggee maanaam tënk na lépp moo xam waaso boo mun ci nekk moo xam diine googu mun ci appliqué ñun ñëpp ñoo bokk nekk Sénégal ñoo bokk boo nekk benn suñu programme présidentiel 2024 mu ngi tudd ñun ñëpp ñu ngi ko ci ñetti ñetti ponk ponk bu njëkk bi gas xulaa ñetti ponk ponk bu njëkk bi. c'est dans le domaine de la sécurité carrément gis nii dañ sant yàlla bu baax bu ñu tëddee di naan lekk bu suur di naan ba màcc ci jàmm ji fi nekk te jàmm ji du du jar la jàmm ju du du ak fukki loxo la ndaxte boo xoolee réew yi nga xamante ne ñoom ñoo wër Sénégal yëpp muy Mali muy Guinée Conakry muy Guinée Bissau muy Mauritanie donc ça ça semble être un pays stable mais xam ne yëngu-yëngu yi fa am. et des querelles moo xam ba ci Gambie ji nga xamante ne sax daanaka teg nañ ci loxo ngir mu xaw a dëkk yooyu yëpp mun naa wax ne dafa ay yëngu-yëngu te yëngu-yëngu nekk lépp à tout moment mun nañ dugg ci Sénégal rawatina yëngu-yëngu yi nga xamante ne ñoo fekkee euh, euh, côté Mali côté Niger côté Burkina Faso te mooy ay jihadiste nga xamante ne ci seen askan lañ bokk ndaxte boo jëlee réew mi ni Mali conflit Mais en fait, c'est les Maliens qui attaquent les Maliens. Ce sont les peuples Touaregs qui sont en train d'attaquer les Maliens. Et ces peuples Touaregs sont des Maliens, mais qui sont basés sur le nom du Mali. Mm-hmm. mais loolu vraiment regarde est-ce que tey di seetaan ba ay coow diine ay coow waaso wala coow sax parti politique nga te boo xoolee léegi violence politique moo ci ëpp mm-hmm. coow parti politique boo tax ñuy xeex suñu biir ñuy reyante ay policiers. di boobu seen seen seen seen i doomu ay ay ay manifestation di am ñuy xeex di dalal suñu biir est-ce que politique jar na ko est-ce que coowu troisième mandat jar na ko est-ce que Macky Sall dana nekk candidat tax may rey sama bopp may dem ci plateau di télé di wax loo xamante ni gëmuma ko wala may wax loo xamante ne aw ci benn gëm-gëm nekkul sax sama priorité est-ce que jar na ko est-ce que mbirum Ousmane Sonko Diow Adji Sarr et cetera war na tax. man may intérêt sama bopp déedéet ñoom loolu seen affaire bopp la ñun dafa Sénégal dañ nekk ak Sénégalais am na loo xamante ne moom moo ñu war a gën a ñor maanaam naka lañ mën a def ba lekk ba suuf mën a am di faju ci lopitaan yi ñu neexee jàng jàng bu mag sëkk ba pare nekk ci garanti boobu ngir loolu nag ñu mën ko am foog ñu xool nag mooy urgence ak lan mooy priorité bañ ñu di so ñu distraire ci ay coow troisième mandat. ay coow Adji Sarr ay coow Ousmane Sonko loolu ça ne nous te képp du Sénégal ku bëgg développement Sénégal y compris et là je lance on appelle surtout pour les Sénégalais qui ont leur carte d'électeur et qui sont souvent qui se sont souvent abstenus ñu toog seen kër bañ a voté gën a leen ngeen daan voté ndaxte ngeen bañ a voté mooy ngeen may chance ñu fi nekk ñu def lu leen neex gën a leen ngeen daan voté ngeen voté seen bopp d'abord ndaxte changement bi ngeen doon def. ci yéen ngeen ko a njëkk yëg ba tax li ngeen di voté nanu nekk loo xamante ne yéen seen àqu lay daal kenn ku nekk ak sa biir bàmmeel ba tax coowu troisième mandat Macky dana bokk ak mu bokk suñu priorité buñ ko sax lijjanti Macky mu bokk ak mu ñàkk bokk nañ def suñu wareef Ousmane Sonko dana bokk ak du bokk nañ def suñu wareef Massamba dina bokk ak du bokk nañ def suñu wareef nañ def li nga xamante ne moo ñu ñor moo liggéey ngir suñu ëllëgu doom ndax aussi buñ fàtte on a une population jeune. te fii 30 ans nous tous nous serons comptables de la situation du Sénégal. donc moo tax ponk bu njëkk bi ci suñu programme ñun ñëpp muy sécurité ñaari ponk bi muy jeunesse nga xamante ne wax naa la ko léegi mu mujj aussi muy le monde rural maanaam bai yi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci euh, réew kaw comme ko mën a waxee loolu daal mooy programme ñun dañu fas yéene incha allah ñu jokkoo ak Sénégalais ndaxte lu yàgg dara danañ commencé suñu tournée dans tout le pays y compris sur la diaspora tout en lançant un appel solennel à tous les intellectuels du Sénégal y compris les universitaires ñu ñëw indi seen loxo ci suñu programme amélioré ko suuxu ko parce que tey bourse yi intellectuel du Sénégal bi sax amatuñu seen seen toog wax seen xalaat ndaxte bu ñu waxee seen xalaat. boo dëggoon ba mu ñëwee nii ñu saaga leen xas leen mais bu ñu ragal bu leen saaga bu ñu ragal bu leen xas ñi ngi koy def lu baax boo séntu leneen lu dul gëm mooy yàlla waaye booy def lu baax di xalaat ne kat ah man kat danañ ma ci wax nii man kat danañ ma ci danañ ma ci critiqué man kat mais loolu sa wax lu baax booy def dara koy def te yàlla rek a tax def ko ngir njàmm yàlla rek a tax da war a mën a tax nga mën ci am fa ñu jàmm hmm. donc lii daal mooy suñu bëgg-bëgg incha allah et am nañu yaakaar ne en 2021 Euh, ndaw Sénégal danañ def seen choix moo xam ku ñu munti voté ak képp ku ñu mun mais ñun ñii di doxal Sénégal suñu priorité mooy kaaraange dëkk bi d'abord ensuite la jeunesse waaye at bu nekk ñu mën a créer au moins un million d'emplois peu importe le domaine mais Sénégalais dañ mën a am fu mu suturu ñetteel bi mooy mbay mi nag ba ñu mun ci dund ndaxte tey nekkatul yoon ñuy dem di importer ay céréales wala déet. loolu nekkul suñu gis-gis war na mën a am ay solution yoo xamante ne war na mën a tax ba Sénégal ku bëgg bay bay ku bëgg dëkk-dëkk waaye aussi mbay mi laata nga ci dugg da nga mën a xam kat sama condition maa ngi ko maa ngi ko maa ngi ko lim kat ci tant de temps war naa ko mën a bay su ma ko bayee kat war naa ko mën a jaay ngir mu bañ a am tëb ci wala mën a toog donc surtout yooyu yëpp lu war mën a am la te suñu programme dañ ko tabax ba nga xamante ne euh, <clears throat> diwaan bu nekk région bu nekk. danañ si mën a gis bopp bi incha allah. am na solo Mouhamed surtout mbéy mi man moom dama ci ànd moom tant que li muy lekk mu ngi koy jégaane ngir mu développé dinaa dina jafe lool. wàllum politique ba léegi dëkk bi gis nañu métti na dëkk bi métti yu cher yi yi nga xam daal góorgóorlu moom ñu ngi ñu ngi ñu a dee loolu tax na sax ba. nguur bu bees gi ñu fal ngeen réew mi nee na ko jël def ko priorité te ana lan nga yaakaar ne moo waral jafe-jafe yooyu ak it ndax li ñuy wax ne nguur boobu nguur bu bees boobu dinañ ko saafara saafara si est-ce euh, que dina ndax boo xoolee lu ci ëpp ci ministre yi fa nekk ñoom ñu déglu du temps de Macky Sall depuis 2012 donc ils sont comptables de tout le bilan du président Macky Sall muy benn ñaareel bi yow mën na loole sama priorité wàññi dund bu cher bi la ba pare yow ay ministre ministre bu nekk salaire am ñaata million cinq millions bu cher jëm kaw minimum sans compter les avantages cinq millions ñaata jeune bu ci mën a sen dina fay cent mille boo recruter cinq millions ñaata kër gi mën a jox saaku ceeb vingt cinq mille vingt cinq weer dee waaw ah. tey jii président de la république bu demee buy jël ngeen bay ay partenaires wala ay alliés même dans le de la politique di leen neexalee ay postes ministre auprès du ministre de enfin pourquoi tous ces petits faits mais nit ki nga xamante ne il est engagé patriotiquement et de manière citoyenne pour son pays même boo ko joxoon dix portefeuilles il va bien à parce que n'oublie pas la gestion d'un ministère benn euh, architecture simple ministre bi coow la la fi c'est le secrétaire général qui fait ce sont les techniciens qui le font liggéey bi yëpp ñoom lui ce qu'il a de coordonner des département par département ñu toog defal fait au niveau du secrétariat général mu daal di dem le jeudi ou le mercredi mu toog président du conseil des ministres c'est tout donc le ministère ci architecture Macky Sall ak doxalinam du lenn lu neexal ces années politiques yi nga xamante ne gagné nañ seen bopp wala am nañ yenn résultats yi mais sur le plan de productivité millions ou quatre millions et mais xaalis boo limoon tey jii gouvernement Macky Sall bu mujj bi maa ngi gis déjà presque une quarantaine de ministres mais quarantaine de ministres yooyu ñoom doxal Sénégal en deux mille vingt quatre ñu weesu vingt ministres. on a déjà fait nombre de structures incha allah te fukki góor lay nekk fukki ministres yu góor fukki ministres yu jigéen ñu ci ëpp nag ay ndaw la ñu nekk kenn ku nekk ci sa domaine de compétence te lañ lay tàmm am na koo xamante ne ñun ñu ngi. ah, ah, ah parce que même coalisé bokk. si da coalition ci lay def. déjà suñu coalition mooy coalition Defar Sénégal déjà en deux mille vingt ak ay parti yu yëpp même bu fekkee ne parti yooyu war nañ leen représenter dans la cadre gouvernemental mais ils vont nous présenter le meilleur profil en fonction du sollicité. tey jii mën nañu gis Bossine ñu nekk ak Bossine par exemple yow sa parti wala sa coalition. vous êtes beaucoup plus spécialisé dans le domaine de la communication, mais envoyez-nous quelqu'un avec jeune, avoir une, une de profil, nous on va travailler avec lui. Nous l'autre priorité, c'est plus pour politique, moo tardé suñu réew mi politique moo tardé Sénégal loo xam le gouvernement bi ak premier euh, euh, euh, ministre en tout cas contribué si président exceptionnel mais xaw ma dara ci ñoom le chef de la vie bi li si njëkk de la République organiser benn benn plateforme ñu toog ci benn panel ñu toog ci waxtaan euh, ci wàllu chef de la ville man sax man sax ne maa toog di waxtaan mais ñii euh, de la ville dañuy waxtaanee wala seen problème bopp parce que daanaka boo xoolee lu ci ëpp ce sont des organisations de consommateurs ou des organisations patronales ou ay entreprises ñu toog di wax seen préoccupation ak seen jafe-jafe entreprise mais waxuñu naka lañ mën a def ba génnee Sénégal ci guddi bi nekk waxuñu man gisuma benn yoon fuy toogee maanaam président yenn saa yi wax naan lii danañ ko def lii danañ ko def mais ku ci bu toogee dana man kat ciment bi lii la mën a lii la mën a jar lii lii lii lii non lan nga fas yéene def ba Sénégal bi mun ko yëg ci dundam mën a wàññeeku gis nga fi mu ne nii monsieur Mbodj dara. Mm-hmm. Euh, gis nga Sénégal wala moom rek mu yombul lu mën a lekk ba suuf am fu mu faral jeex na. te loolu secret mooy jox président Macky Sall la ak ministre Abdou Karim Fofana da ngeen fexe ba Sénégal yi nañ lekk ba suur am fu fanaan gis nga coow location ak lekk ba suur naan bu ñu ko amee yëpp ba leen neexee sax ngeen topp ba deux mille soixante quinze sama mandat y a pas souci mais mbirum cherté de la vie mu ngi commencé d' abord par dire au Sénégal de la vie dañ leen wax dëgg dañ leen wax dëgg dañ leen wax li mën a nekk li mën a nekk parce que jamono bi ñu nekk nii dafa nekk jamono bu doy waar lépp yokk lépp soppeeku jamono monsieur bi nag tax na mu am blocage bu mag a mag ak Covid bi nga xamante ne jëriñ suñu multinationales yi léegi xoolaat fan lañ war a investir seen xaalis wala ñu war a dugal seen xaalis ñi nga xamante ne ñoo doon dimbali dëkk yi dimbali ci dëkk yi daal alal bu bëri investir nañ ko dans le domaine de la recherche des vaccins yooyu donc àdduna bi léegi dafa jaxasoo. bu ñu amul occasion toog waxtaan suñu biir mais kat Sénégalais bi lii kat la mën a jar te a léegi nag état bi nag foofu la waroon a defee ay pas maanaam fexe ba Sénégal donte njëg bi yokk na ñu mën ko supporter maanaam yokk pouvoir d'achat bi ba mun kaa tam te yokk bi ci naan yokk salaire am wàññi njëgu loyer lu mun a nekk lu mun a nekk la gis maa xam ñaata laa jëndee sama kër naka laa def may ñaata laa ko tabaxee lu ma neex laa tuddee lu ma neex moom am Sénégal comme yow boobu wax. mu déjà ma jox la exemple bu ndaw gis nga fii képp ku fi am kër état du Sénégal moo jëm kër daanaka ñun ñëpp amul kër suuf suñu état rawal ndaxte état saa su ko soxlee dafa doon koy jël moo ci dara donc sax daf lay def ay ndàmpaay ndàmpaay yoo xamante ne nekkul obligatoire muy benn ñaareel état bu la joxee suuf moo xam sa suuf loo ko mën ci tëddee nga dem liggéey fukki at ñeent fukki at dem banque nga dem banque banque lebal nga daal di tabax sa kër yow produit ak bagage yi nga xamante ne moom nga def sa kër moo xam muy garo yu cher muy muy WC yu cher muy équipement yu cher ñu ci def lépp bu cher boo tànnee mu cher kan yow yaa ko tànn wala état bi ko tànn donc bu fekkente ne dañ def ay équipement yu cher ba pare muy yu cher ça se comprend mais mënoo ci def yenn yenn yenn équipement yi parce que beaucoup luy lu cher ça pose problème. et c'est ça le problème gis nga tey jii ñun mooy li ma la wax déjà suñu programme yi ñëpp daf ñu baax ñu jiital tuuti gëm yàlla nga xam ne nii yëpp aussi fii lay des dara ñu yokk suñu bàqee am na lu yokk ni jamono kër bi boo demee ñu gis wax ne ñu koy yokk te boo demee bàyyi na fi ay kër bàyyi na fi ay terrain bàyyi na fi alal bu dul jeex ak lépp bu dul jeex dara ñu toog ñu war a xiyaar ba tax na. vingt mille trente mille cinquante mille yi ngay yokk ci te wóor na ne ki nga koy béy am nga information ci moom xam nga li muy liggéey xam nga ne kattanam kat amul si baax na ci aussi tuuti lu jiital loolu yéen a ngi gëm yàlla dawal demandé ndax loolu mooy mën a tax ndaxte tey dama lay jox exemple bu man mën naa luy benn étudiant boo xamante ne médecine la nekk mu luy nga am prix dérisoire mais ëllëg maa ngi lay tardé ñaanu koy est ce que du ma moom moo ko opéré sama waaye lu jar a ba tax na nag mais ñaan président de la République na góogóo ba Sénégalais yi euh, li ñuy dund da métti na trop la dund bi nekk euh, réew place ñu ñoo ko yëg mais réew kaw métti na lool amatul dara surtout nag waa réew kaw na bàyyi xel lool waa réew lu leen mën a dimbali na leen dimbali moo xam ci dund moo xam ci mbay bi. moo xam ci ay infrastructure boo ci aussi ci ndaw ñi ñu mën a am liggéey. ndaxte bu amulee ñoom ñëpp dañuy daal di ñëw Dakar jafe-jafe am fii problème d'insécurité am fii problème de salubrité am fii loolu lépp état bi wax moom la évité. Mohamed euh, loi d'amnistie euh, bi nga xam ne ñu ngi koy euh, wax te mu war a setal ay leader politique yu si mel ne Karim Wade ak Khalifa Sall bi nga xam ne ñoo ngi si ñoo ngi si rëbës am naa la ko gisee ñoo ko jàppale. waaw man am na benn bataaxal bu ma jagleel président de la République tuddee lettre au caucus boo xamante ne maa ngi xamal Macky ne ko incha allah dina bokk ci juróom deux mille vingt quatre di si xamal président de la République nga xamal ne ko aussi dafa ko jéggal ndax chaque jour moom mii Macky Sall chaque jour président yow sa njaboot wala ku la jege da ngeen toll suñu borom te du ngeen ci bàyyi xel di ngeen tooñ suñu borom te du ngeen ko tey ba noppi mu am màggaayu jéggal leen bañ leen ci topp ba noppi bàyyi leen ci kaw suuf bu fekkoon ne képp ku tooñ suñu borom jël la kon ñu ñëpp jeex nañ ay tooñkat lañ te bu ñu fàttee loolu moo tax suñu borom indi ci kaw suuf suñu maam Aadama bu tooñ moom suñu borom du ko indi ci kaw suuf ba tax na président jéggal bi nga xam ne moom la ak moom lu bëgg ci kër Karim Wade ak Khalifa Sall bu ko defee lan la koy wàññi waaw lan la koy yokk yéen ñu suñu bopp lan la ko jiital muy Karim Wade muy Khalifa Sall ak bépp doomu aadama boo xamante ne jàpp nañ ni kat dañoo bafoué ces droits civiques et politiques bépp doomu aadama kon dañoo jàpp ne dañ leen tooñ rawatina ñi nekk ci kaso yi ak ku munti doon amnistie boobu ñëw ci ñoom ñaar kese képp ku ñu tooñ képp ku état tooñ waaye état aussi day tuub état bi jiw ay nit ñoo nekk ci état bi nit ñoom moom jiwte donc képp kuy jot nañ ko jégal te yàlla ak tax donc loolu laa xamal Macky Sall président Macky Sall ci bataaxal bi moo tax projet de loi de lis boobu ñoo ko déggee mbégte rek laa ci am donte nag am naa ci ay réserve waaw donte am naa ci ay réserve yu bëri ndaxte booy investir da ngay investir ku ko bëgg mais ci li ma jot a gis moo xam Karim Wade wala Khalifa Sall ñoom ñaar ñëpp ñu leen amnistie boo xoolee ñoom ñaar ñëpp dañuy wax naan ñu réviser seen procès waaw ndaxte révision de procès boobu mooy tax duñu leen tuumaal ndaxte bu ñu leen amnistie maanaam nangu nañ ñu leen tuumaal wala ko déggal leen xam nga ki nga xamante ne dañ ko jiw sàcc te sàccul ba pare ne ko yow kat sàcc lañ la ji ñoom dëkk lañ ci kaso baal lañ la léegi dégg nañ maanaam yow ak sàcc mais ki nga xamante ne dañ koy jiw sàcc parce que yàgg daa gën a réviser procès bi ñu réviser procès bi kat état bi Sénégal reconnaître ne kat bi ñu jumlee ki ñoomoon sàcc la du sàcc bu boobaa non seulement dana ci sa dara dana ci am victoire mais aussi ëllëgëm dana mën a leer ci wàllu mbir donc moo tax Karim Wade il sàcc il a été très intelligent de l'éviter il refuse même ses voies d'amnistie mais su ma loolu moom comme que loolu la te am na bëgg-bëgg njiite njiite réew mi Euh, ñoom ñëpp muy moom muy Khalifa Sall maa ngi leen di tàggatoo aussi ñoom jàppale coalition bi ñun ñëpp aussi ñu mën a nekk benn am naa yaakaar ni incha allah loi boobu dina mën a seetal lu bëri bu fekkee loi bi aussi du seetalaale ay nit Macky Sall yoo xam ne dafa def dootul woon. ah mën naa loolu ñàkk parce que xam nga dañ leen am ne si ay fee lay ay fee lay lay dépassé te si benn période lay def waaw dañoo amul laa moom. mais bien sûr mais bien sûr. xam nga président la ñu wax dëgg président dafa daan daal le président de la République ne peut rien faire pour rien mënul def dara ci le président a des experts des experts qui le conseillent lépp lu muy dugg lu nekk nit ñi le pour lan le contre au cas où on le pour voici les hypothèses c'est le cas de Mimi Touré je fais juste une petite digression pour rentrer dans ce sujet moom mi xamoon nañu déjà à l'avance que par exemple madame Mimi Touré que lii démissionné ci groupe parlementaire ban plan benn nga ko mën a en place au cas où madame Mimi Touré génn ci télé bi wax ban plan la ko mën a mettre en place président nga xam na loolu lépp président explique tout il tout c'est l'homme le bien renseigné même amnistie bi xam na ne bés bu amnistie en dehors de Karim Wade di Khalifa Sall sont les opposants politiques ou les politiciens qui aujourd'hui sont à ses côtés est-ce que la loi d'amnistie ne va pas apprécier les vingt cinq ou vingt deux présumés de de de de de de l'OFNAC non pas de de de la nga xamante ne ñoom lañ toppoon est que ñoom lañ lay amee si waay ndaxte aussi bul fàtte ki nga xamante ne mooy Moussa <laughs> bokkoon na ci liste ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade bokkoon na ci liste te tey fi mu nekk nekkul ci nguur il faut se poser des questions. ñu ngi naan ñu wàññi doole Ousmane Sonko foog naa ñaareeg ñu bokkee peut être suñ ko dooleem wàññeeku est-ce que ngeen gisee noonu. foofu dama ci xaw a tey tuuti ndaxte nguuru Sénégal dafa am loo xamante ne comprendre ko ba léegi ci Ousmane Sonko le problème c'est Ousmane Sonko même neutraliser Ousmane Sonko ne règle pas le problème de Sonko. Tu neutralises Sonko, il y a des milliards de Sonko qui sont au Sénégal. Tu ne neutralises pas il y a des milliards de passifs qui sont Sénégal. Nous, par exemple, dans le Sénégal, nous avons presque la même approche de défense que PASTEF, mais nous ne partageons pas la même, technique, nous ne partageons pas les mêmes options. D'accord Pourquoi Dans le domaine du d'accord, peut-être PASTEF, c'est un défi. Défi de force, défi de violence, etc. Mais boo xoolee gis-gis ñu war PASTEF ak yéen foofu nag lañ wutale ba tax na ñëw réewu Sénégal buñ ne kat nañ yeewu Khalifa Sall yeewu bi tamit bàyyi la ñu mën a bokk ci élection ngir ñu néewal doole Ousmane Sonko dañuy nax seen bopp parce que buñ fàttali Ousmane Sonko bi ñu dem élection présidentielle 2019 il est parti seul sans Karim Wade sans Khalifa Sall et pourtant il est classé troisième aujourd'hui Idrissa Seck mu ngi ci ginnaaw Macky Sall le champ est libre ginnaaw Macky on parle de Johnson, on se dit la vérité, peut-être après avoir parlé de Johnson, Sénégal, on se bien. peut-être ñaareel euh, bu ñëwee j'ai une naissance. léegi nag non mais je dis dina changer ci ban parce que analyse bi suñu am solo l'électorat de Khalifa Sall ne dépasse pas Sénégal euh, ne dépasse pas Dakar c'est ce que les gens n'ont pas compris. Euh, non pas lu ma yaakaar mais on en train de faire benn analyse xam nga sénégalais dafa am loo xamante ne injustice bi ñu def Khalifa Sall tax na mu am ay sympathisants yu bëri bëri bëri ba législature bi passé ñoom ñu am ci doole waa taxawu Sénégal ndax li ñu toppee Khalifa Sall am na wala déet Sénégal yi xam nañ kenn doon ndax li ñu toppee Karim Wade am na wala déet Sénégal yi xam nañ kenn doon mais xoolal tey électorat wu PDS ni muy défrité wu ça commence à s'effriter moo xam. au niveau de la région de Dakar ou sinon les autres régions ku la newoon mës na ñëw PDS di ànd ak waa Yewwi Askan Wi donc aujourd'hui PDS ñaata député la am Yewwi Askan Wi ñaata député la donc ça nous en fait de manière générale que euh, si tu fais cette étude et que comme le problème n'est pas seulement Yewwi Askan Wi tey jii bu génnoon Yewwi la bannière de élection euh, législative. li mu am ci député moom lay am mais bien sûr parce que le poumon vert de Yewwi Askan Wi c'est Ousmane Sonko. seen i liggéey kër wàllu dellusiwaatee moom it ak PDS mi gis ne élection yi ñu ngi am taxawaay ba léegi monsieur Diakhoune. je ne pense pas je ne pense parce que le président Macky Sall il a réussi une chose il a réussi à démontrer le PDS. tey jii kan la mu nekkoon PDS yëpp ñu ngi ci affaire wala ñu ngi ci benn bopp yaakaar il a réussi et foofu il a le mérite qu'il faut reconnaître lorsqu'il disait que. en fait, euh, euh, qui va réduire l'opposition à sa plus simple expression, il a réussi à 60% à réussir, euh, Maintenant, euh, du côté de Khalifa est-ce qu'il n'y aura pas vote face Parce que j'ai bien peur qu'il y ait la renaissance du PS autour de Khalifa Sall. Après Diabolini, bon, on les PS, il y a beaucoup de gens qui ont euh, récemment, on a l'idée de Eh, candidat la. ñu mën a diriger voilà ñu mais dana nekk compliqué. ak eh, li ma xamee sëñ Mbaye Thiam ni ma xamee lool. dana nekk lu kii compliqué mais xëy na sama mbokk mii di Abdoulaye Wilane di ñàkk incha allah dana wax donc affaire wu PS la mais daal jàppal lu ne mën na xew. waaye tamit lu mën ci xew mais jàpp na incha allah dafa Sénégal toog na ko moom incha allah. Mohamed lan ngay tëjee suñu waxtaan. jërëjëf Moussine. Euh, may terminer d' abord di euh, delloo njukkal sénégalais yëpp rawatina jullit en particulier tijaan yi ndaxte ñoom ci weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waajal guddi bu màgg gi di guddi ki gën ci ñoom te muy gën ci bindee Muhammad di sama turam incha allah ñu ñaan suñu borom bi dara tawul mu yóbbu ci jàmm ñu àgg ci ci jàmm may ñaan Sénégalais yi ñu profité ci ñaan ngir Sénégal ñaan ngir jàmm ñaan ngir yokkute yokkute nag moom koy wax du du defoon président Macky Sall wala man nee naa du ma Benno du ma APR jege ma leen tiidu mais ñaan jàmm jàmm ci la lépp xeet moom si jàmm ko ko am am nga àdduna am nga àllaaxira jàmm ko ko mën a am da nga dafa sa àdduna moo sa àdduna ko moo tax may ñaan suñu mbokk bi gën a tëgg ci weewu gàmmu gii ñu nekk Maodo Ndounda bi mu dafa ñu jàmm projet bi nga xamante ne moom la xalif généraux yi am te muy euh, sëñ Mansour Sy sëñ Babacar Sy Mansour ak euh, sëñ Mahi Niass yàlla mottali leen ko ba ci fondation Cheikh Ibrahima Niass bi ñu wax am foofu ci kaw la di ñaanal aussi jullit yi nañ daw nànk daal nànk gàmmu gi. Euh, benn bu kase la ba mu tax ñu ngi def lu mënul wala ñu yokk njëg wala paas lépp lu ñuy def nañ ko def ngir borom guddi gi bu ko defee incha allah suñu borom mën a baaxee lépp lépp mën a saawan baawaan Sénégalais yi mën nekk benn ñu ànd ñun ñëpp dafa suñu réew daal di doxal Sénégal incha allah. Mouhamed Diop Kandé maa ngi lay jaajëfal di fàttali ne docteur en informatique di président parti bi di doxal. Sénégal nekk candidat à la candidature pour l'élection présidentielle 2024 ñu ngi souhaité déjà bonne chance. Euh, di jaajëfal itam kon mbokk internet yi nga xam ne ñoo ngi doon euh, bàyyi xel yaakaar naa moom wax naa ne fii am am solo te it euh, dina jural njëriñ ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi doon bàyyi xel ñu leen jox ki tey rek kon lu yàggul dara.